ñoom seen ambition dépassé na li ci bu nu yàlla dimbalee eh, ci kattanam ci kanam tuuti ñoom ni ñu bëggee ñoom ak li ñu ma woon ci seen ambition ma gu ma bëgg leen gunge incha allah di ngeen gis lu raw li bëgg nañu tabax école xel eh, seen yéene ñoom li ci nekk mooy internat sax moo ci nekk. waxuma lak nag école bi yem ci ba ci internat ak ay daara moderne moom moo nekk ci seen yéene. président bi jiite ko man nag comme nekkuma fi damay ñëw très rarement. moom mooy ñëw di ma wax may ànd ak ñoom ci liggéey bi. moom mooy ñooy ñi nga xam ne mooy Demba Diop mi nga xam moom moo jiite commission bi. man nag damay jàpp ni mën na nekk ci ginnaaw di def waaye nag ñëpp ñoom ñii la. xaalisu kese mënul defar dara lépp ñoom ñii la. donc moo lépp ku ñi fi jullee ñi fi dëkk ñi dëkk ci dëkk bi ak képp ku yeewoo ci dëkk bi. tuyaa ba ju ñi am ma am ko ci yal nañ ko séddale mbir defal ñëpp bokk ci barke alxuraanu karim barke Cheikh kon ñu dem ci visite de chantier yi nga xamante ne moom lañu ñu sumb fii ci man ci ko. ñu la ko xoolee woon jumaa ji mais mais xanaa bi ngeen di jël nii. li ñuy jël nii. li ñu naan waaw mais dama ni. ci suuf dafay nekk bu ñëw di trop. bu mu passé 5 mètres. dafay nekk dafay ci suuf ci suuf. day jub comme la. côté bi ngeen bëgg mu continuer. waaw mu continuer waaw mu kat ay nit lañuy teg ci kaw. ca ba pare dem ba tabax. yow mi koy tabax. jàppal ni man naa am téeméeri at. ñoom fii ñoom fii euh, ñu Sall Touré. ñu defoon fii lii. xam nga li ñu defoon fi Fatick nga ko da nga xanaa da nga Fatick li ñu def fii ci suba ah, kenn xamul lan la ko. Ah, mais mais dem ba. ba ñu ba lii c'est trop quoi.